tey moom dañoo am mbégte lool fekkee lii parce que ñun comme ni ma ko waxee ci saal bi rek ba ñuy xale ba léegi dañ ko daan dégg nii naan sëñ bi ak autorités yi dem nañ CRD Thiès euh, tey suñ demee ba yàlla def ñu ñu nekk maire ñëw toog ci saal bi bokk ci autorités yi dañ ciy sant sunu borom bu baax a baax point yi nga xam ne nag moom lañ fa souligné ci li nga xam ne moom moo jëm wàllu gàmb gi nun maire bi daf daf ñu ci fekkoon la ci fekkoon ñu nekk ci ab liggéey boo xam ni Euh, suñu gàmm gi fekk see affaire bi day gën a yomb wàllum éclairage lañ fi wax wàllum courant beeg yooyu fekkoon na ñun ñuy góorgóorlu di Senelec di ñu jàppale ci extension yi euh, sëñ bi nag chaque année day am quota su quota am ñëwee bokk ci li nga xam ne mooy liggéeyu maire bi defe naa ne mbir mi day gën a yaatu euh, li ci gën a nag bees ca yëf yi mooy daf fekkoon ñun bi ñuy li laaj maire bi dañu diggoon waa Pirkani soo leen man su ma faloo man doyu baan dinaa éclairer li ko commencé kër Gallo ba Paal maanaam sooy dugg Pire ba booy génn Pire su fekkee yaa faral di ngay faral di ñëw piir guddi da gis ni route nationale bi dafa lëntam dakaar ba Ndar Pire rek moo ci meloon noonu mu nekkoon nag benn góom boo xam ne waa Pire dañ ko doon jooy fi mu nii euh, depuis euh, février lañ ko waroon euh, pose waaye ak sama partenaire yi nga xam ne ñoom laa ci doon waxtaan di waa ANER fexe nañu fexe naa waxtaan ak ñoom ba nga xam ne instant bii may wax yow ñu nga Pire. di jéem a liggéey liggéey boobu nga xam ni moom la ñu bëgg a installer euh, lampadaire solaire yi Kër galo ba Paal sur la route nationale euh, numéro numéro deux euh, suñ fa jógee tamit ci biir dëkk bi am na ay lampadaires yu bare bare dañ ko xam ne dañ ko fa war a def parce que mooy route principale bi nga xam ne sooy dugg piir fa ngay jaar sooy génn pir fa ngay fa ngay génne maanaam li ko dagaje kër sëriñ bi kër sëriñ Moustapha bi romb continuer jéggiraay bi romb kër Baye Issa Diop romb terrain basket bi ba ci en poste bu njëkk ba foofu yëpp dañ koy dama koy fas yéene éclairer def fa ay lampadaires solaires naam Senelec mu ngi ci doon góorgóorlu di ci def ay làmp mais dafa am ay lampe yoo xam ne yàgg na fa heure bu ñu ca defee làmp rek su amee ñetti fan làmp ba lakk léegi dama bëgg éliminer euh, courant bi foofu def tali boobu yëpp solaire su ko defee suñu gàmmoo ba pare ba gàmmu gu weesu foofu ñu jëm ko aménager ba nga xam ne place lay doon boo xam ne képp ku xëy toog su guddi jotee nga am foo mën a doxantoo yaag soo soxna wala yaag sa papa wala yaag sa yaay te route boobu noonu noonu incha allah suñu ko defaree ba mu rafet dañ koy tuddee allée Serigne Moustapha Cissé voilà loolu loolu loolu lañ ci jublu ci ci ci maire bi te incha allah ñoo ngi ci liggéey bi liy tàmbali ba la rek ak gàmm gi mais suñ demee ba defar ko ba mu rafet ba yaan ci li tax ñu koy tuddee Allé sëñ Moustapha Cissé bi mu feebaree dig tali boobu la daan doxantoo ba ni mu wàccee liggéey te dafa doon nit ko xam ne nit ko am solo la ci ci ci ci ci dëkk ba. voilà yeneen loolu courant bi la am na ci yeneen yoo xam ne tamit euh, euh, ñun suñu loxo ñi mi ngi ci muy. Euh, wàllum ndox mi dégg nga li ci waa waa CNO wax euh, dinañ jéem a maye ay li nga xam ne mooy ay branchements sociaux ci yenn kër yi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw euh, yaatal ko beneen bi mooy wàllum ndox mi surtout jamono jii may wax ak yow euh, dafa am bi ay dëkk yoo xam ne mat nañu trente yoo xam ne jamono jii soo fa demee dañuy am problème mu ndox loolu avant ñu doon falu ñu ngi ñu ko doon jooytu parce que seen forage bi dañ ko branché woon ci forage bu naan forage Ndindi forage Ndindi mi ngi nekk Tivaouane forage Ndindi day li muy paan dafa bari léegi nag man jóg naa ak samay pexe samay lijjanti dem ci waa PDC fexe bañ may ma ab forage forage boo xam ne trente village ñoo ci connecté wu jamono jii may wax ak yow ñoom ñi ngi ci benn village bu ñuy wax Leyeen di gas forage bi pour defar ko ay chinois ñoo fa nekk dañuy liggéey guddi ak bëccëg am na ñu dëkk Pire sax ñoo xam ne sax lii ma lay wax nii yëguguñ ko mais temps yi yëpp ci loolu la nekk ñun di fa jaabante ñaari yi yëpp. di fa jaabante ba semaine passée les chinois waaye ñëw indi seen matériel jamono ji ña nga fa nekk di liggéey loolu su paree dina tax village yi nga xam ne ñëw féete na la ci ginnaaw mat fanweeri village ak lu topp dañ daan am problème mu ndox seenum ndox ci seen forage bi ci seen biir dëkk ba foofu gox bo foofu lay nekk nga xam ni daal kenn dootu jooy jooy jooyeti jooyeti mar li nga xam ne mooy mooy tamit affaire u ONAS waa ay affaire u euh, vidange yi ñu war a def ak yooyu yëpp tamit da nga li ci waa ONAS jël service yi fi nekk daal kenn ku nekk wax nga li nga fas yéenee li nga fas yéenee def ci gàmm gi waaye ñun daf ñu caa fekkoon maanaam gàmm gi dafa ñëw renforcer ñu. gis nga tali yi nga xam ne ñu ngi koy defar un kilomètre quatre cent yi ñu ngi koy defar fële ci ginnaaw avant avant avant gàmm avant gàmm gi woon ak lan euh, bari na daal ay projet yoo xam ne instant bi marché bi marché bi defe naa ne sama ñoom papa ngi nii ñoom ñii euh, samay nopp dañoo juddu fekk ko fi mm-hmm. ñoom ñii dañoo judd fekk fi waxtu mu la ak man mii marché ba man maa ko daaneel fas yéene ko defaraat entrepreneur baa nga fa instant bi su pour mu wax la ni lu mat juróom-ñetti entreprise jamono jii ñi ngi piir di liggéey kenn ku nekk ak la ngay liggéey te loolu moo taxoon ñu fal ñu nu ñu fexee daal ba euh, askan feex beneen bi mooy sooy sooy dugg si pir ni mu mel dafa ñaaw mécanicien yi kalandoo yi nu mu ne fu neex waay lal fu neex waay euh, ubbi atelier loolu nag dafay dàkk nag piir lañ dëkk ña fa ne Pire lañ dëkk ñun ñoo ko bokk pour ku ci seetaan lii nga war a xam ne ñun lañu li ñu fa yéenee def fan yi defuñu ko pour toroxal kenn wala pour xañ kenn dañ koy defar pour defar dëkk ba ñoom ña nekk ca tali sax di def na ko su noonu xam nañ ni lii ñuy def jaaduwul dem nañ wax ak ñoom réunion nañoo ñoom wax nañoo ñoom sur la ñu euh, tuddati ca ca seen bërëb ya fii semaine prochaine oto dañuy daal di ñëw ànd ceeg gouverneur ak préfet ak sous préfet ak la gendarmerie pour lépp loo xam ne lu jaarul yoon la ci tali bi ñu jaarale ko yoon désordre bi dafa bari piir lu neex waay def lu neex waay def nit ñi nag dañ koy daan fara def waaw soo ko defee politiquement nii dañ lay mere man garaawul amul problème man na dëkk ba normal rek man looloo ma ñor su fekkee da ngaa ci kaw tali bi di jaay man maire mën la jógel fii nga mere ma tax ëllëg élection doo ma woteel bul ma woteel voilà mënoo def omelette te doo toj yi nen pire nag fan yi il faut ne ni toj pour que yëf yi baax waaw li wax rek laay wax rek euh, nit ki nag kubéer gi butéel bu ne kubéer ga ko upp lu mu upp lay xeeñ ñun xamuñu ñun waa Pire xamuñu wax ju ñaaw xam ñu def lu ñaaw xamuñu taal pëna xamuñu dépassé mag li ñu xam mooy liggéey ak jaamu yàlla peut-être coow laa ngi ñu ngi dégg coow Sénégal mais pire de coow la fa am mooy marché ba may defar ak tali ba may defar ak gàmmu gi ak làmp yi coow loolu day fa am keneen ku fay ñëw di indi leneen ni coow ay wax ñun amuñu soo jot ñun jot bi ñu am mooy jotu taal làmp yi jotu defar tali yi jotu defar marché bi jotu jàppale sëñ bi ci gàmmoom gii bu baax fa satisfaction totale fi mu nii damaa ñëwoon fii nii pour jàng jàng naa fi lu bare bare bare en tant que ndaw CRD bële di ñëwaat su déwénee incha allah di di nga di di ñëw ak beneen toogaay parce que fii dama ñëwoon pour jàng te ba mu demee ñëwee gis naa fi loo xam ne vraiment euh, CRD war nay am chaque chaque chaque chaque mois pour que ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ te ñu doog a dugg ci yu mel nii ñu mën cee jàng lu bare bare bare parce que gàmm moom dafa baax ci dëkk soo toogee benn at gàmmu li ngay ñàkk dafay bari moo tax Covid bi mu amee ñu toog ay at yoo xam ne gàmmuñu lu bari bari dañ koy ñàkk donc ñi ngi daal remercier service yi nga xam ni ñoo fi nekkoon te doon ñu jàppale ci